arbitre bi sifflé boobu dox ci diggante Sokh 2 ak Bécaye Bécaye moo la woon ginnaaw Sokh 2 moom nga moo ngem boo ngem ndeysaan Bécaye Sokh 2 Bécaye Sokh 2 ñoom ñaari ngi noonu Sokh 2 Bécaye Sokh 2 Bécaye Sokh 2 ak Bécaye Sokh 2 dagg na lewaatoo bi Sokh 2 dagg na lewaatoo bi Sokh 2 Bécaye jàppante xeex dóor daanu wala déet ña xeex daw na jëli Bécaye jël na Sokh doo tëru na ko combat bi du yomb ñaari xale yi xeex nañ mu ngi door ci suuf Sokh doo door na ci suuf Sokh doo dooraat na ma ngay door ma ngay door ma ngay door oh waaye door yi metti na waay ma ngay door ma ngay door plaqué na ko yegg nañ suuf dara xewagul laay laay la la waaye booy yaa ngay bëree day booy bëri nañ waay soq deux Bécaye ndeysaan soq deux ak Bécaye ndeysaan soq deux Bécaye Sokh 2 ak Bécaye ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ndeysaan ña ngay lewaatoo ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Sokh 2 Bécaye Bécaye moo la féete ndijoor Sokh 2 moo la Sokh 2 Bécaye cokkaas wala déet daw na jëli ko Bécaye téye na ko tëru na ko da koo séen Sokh a ngi dóor ci suuf Sokh dóoraat na Bécaye bëgg na ko jaxabal bañ na ndeysaan Sokh 2 Bécaye Sokh 2 Bécaye Sokh 2 Bécaye Sokh 2 Bécaye dooraat nañ ci suuf ma ngay door dooraat na ma ngay door Bécaye Sokh 2 ngi door ci suuf Bécaye jàpp na rek di déglu am na lu naaw du protestant wala déet arbitre bi am na lu naaw de arbitre am na lu naaw de proteste Bécaye bi mbaadu daa naaw protestant bu Bécaye bi mbaadu daa naaw protestant bu Bécaye bi du daa naaw ma ngay dóor ña ngay dóorante Bécaye nga fayu soq da si gina ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay dóorante dóor na ko mu rab wala déet laay eh boy combat bi metti na dem nañ Ardo lamb ji de lamb Ardo la tay waaye mbokk yi di ni Zarko daan na mbéy gu gi feese stade Iba Mar Diop soo ko ñu dóor arbitre na combat bi Bécaye dem na Ardo Bécaye dem na Ardo Bécaye dem na Ardo ma ngay dem ma ngay dem Sokh ak Mbaye Gouye Sokh arrêté lu arbitre lu wax lu muy wax lu muy wax match nul match nul xale yi bagaar nañ xeex nañ match nul lañ match nul lañ